combat bi diggante ak Côte d'Ivoire mbokk ñu fu ñuy mujj ñoom ñaar ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi lewaatoo Sénégal Côte d'Ivoire arbitre bi àtte na lu xew avertissement Ngor Ñaax Sénégal avertissement Nigéria Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. ñoom ñaar a ngi noonu. ndeysaan ñu ñu ngi noonu fàqat na ko Ngor Ñaax ndaanaan la mbëru Sénégal bi ndeysaan senegal Côte d'Ivoire ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi jàppante Ngor daa bëgg a tànk bi fàqat na ko yóotu na tànk bi xale bi bañ na Côte d'Ivoire tamit ay xale yu ndaanaan la ñu am xale yoo xamante ne mën nañ fomi dañuy bëre des fois nga yaakaar sénégalais kum ci jàpp dañ lay saax saaxee far mu mujjee metti ci ñoom gis nga xale baa ngay bëree Ngor ñaax Sénégal ceinture bleue Côte d'Ivoire ceinture rouge na ko bleu rouge bleu rouge bleu ñu ngi noonu senegal ndeysaan ñu ngi noonu rouge bleu rouge bleu arbitre bi àtte na avertissement avertissement ñoom ñaar ñëpp am nañu avertissement Sénégal am na avertissement ndeysaan Côte d'Ivoire am na avertissement ñu ngi noonu mu ngi koy jàpp ndeysaan jàppul ngemb li de walla génn nañ saako yi génn nañ arbitre bi sifflé waat na ndeysaan ñu ngi noonu saan jàppaat na ko takk na ko daan na ko ngóor ñaax daan na Ngor ñaax daan na ndeysaan dafa blessé wala daa crampe